lii doyati na waar mbokki internet yi tey dañuy dem ba diwaanu Touba tuul bokk ci département Thiès indi leen feebu doy waar benn waxambaane maanaam xale bu góor moo fa wéer maamam bumax ko ba maam ja mujjee bloc opératoire ci xeex boo xam ni dégg nga maam da ko amaloon ak waa kër ga mooy soxnaam ak ki jaayam ak képp ku dëkk ca kër ga dema dema dem ba loola nag ëpp ko doole ba mu songoo maam ja ñëw di ko atte mu daal di koy bumax bumax ba nag ma nga ca lali hôpital yi di war seenee nag fajoo loolu mbokk yi lañ leen fas yéene nettali ay ca ñu dem ci fee wax joo doon bay bayal di ko gàttal mujj na law ba mel ni ak were waa ji la nga xam ne moom la ko yoon di toppee maanaam bundu xataal ab famem aw askanam ne mu dëkkal moo xam jabaram la wala ndijaayam moom jeune boobu di wuyee ci turu isaar moom isaar moomu maamam la daal di euh, bumax boole ko fitna joo xam ni ba maam ja di wuyyeeti turu asaar jamono bi ma ngay faju bis boobu le maam ji dafa ñëw doon intervenir ginnaaw bi mu doon jàmmarloo ak soxnaam maam ji ñëw di ko atte mu daal di mer bàyyi soxna sa bumax maam ja maam ja nag wetu deltu ginnaaw ba mu nee dër jëlee ca gaañu goo xam ni l'hôpital la mujjee ndax da ko violenté ba maam ji bi mu ñëwee ci barabu fajukaay bi dañ ni kii dañ koy rawale ji urgence ca l'hôpital mu daal di dem urgence ba mu demee mu war a def opération ndax gaañ ga moo miti ba mu demee nag faju ba pare moom asaar di maami gune gi am na benn certificat médical bu ñu ko defal wax ni mu gaañoo ak anam yeeg yëpp ca nag daal di saisir gendarmerie def plainte ngir plainte nag sëtam bile nga xam ne li mu koy toppee mooy coup et blessure volontaire maanaam sët bi dafa am sañ-sañu bu ma ko ba mu gaañu gaañu googu nag mu ca jëlee ak opération yaag fay faj gaag yépp rek da koo dëxëñaale ngir nag bëgg koo tëjlu jeune bi di isaar bi nga xamee ni gendarmerie jot nañ plainte bi danoo dem jëli ko daal di koy placer su mandat de dépôt ba nu ko jëlee kasob Thiès lañ ko yóbbu mu nekk fa nag ba détention préventive am jeex ñu indi ko tribunal bu grande instance ci kanamu àttekat yi ca flagrant des délits mu ngir nag mu daal di jàkkaarloo ak yoon jëf jëm defoon maamam ba muy faju mën a dem fenn xam nga màgget goo xam ne romb na ay at yu bari bari bari boo ko bu ma xëyee ba mu yegg suuf kooka itam indi nga beneen jafe-jafe boo xam ni ci dundam lu doy waar la lu nu mel moom la waxambaane bi def ca diwaan ba mbokki internet yi ni teewlu saa su nekk rek ci suñuy fait ver waa ji bi ñu ko taxawalee ci kanamu àttekat yi li mu def moom mooy moo xam xamle ni gaañ na maamam bu na ko maam ja am na ay blessure loolu moom dëggal na ni moo def loolu waaye nee du da koo dóor wala mu wéer koy kurfeñ waaye da ko da koo da koo bëmëx waaw da ko bëmëx xam naa nag dafa deltu ginnaaw daanu ba nag nekk jëll boo xam ne jëll gu doy waar la am nag benn soxna si yooytu turu moom dañ koo yebal maam jaa yebal ngir mu teewal ko ci tribunal ba fas yéene bi bile dossier moom Essar biñ ko dégloo ci kanamu attekat yi dani sama maama fi yebal ngir nag ma teewal ko waaye nangu na ni ab sëtama ko gaañ waaye jéggal na ko maanaam baal na ko tribunal nag comme loi ñoom lañu xam ak i texte ñoom lañu jàpp muy procureur ak ñam ko àndal maanaam wax jooju dafa mel ni dañ koo déggut ndax ñoom li ñu gis mooy yoon def liggéeyam ndax waa ji violent la maanaam waa ji ku bari fitna la ki nga xam ni moo ne woon représentant ministère publique moom la mu wax yëkkati ko ci kanamu attekati wala ci tribunal bi mooy isaar moom habitué des faits la maanaam nit la koo xam ni saa su nekk rek dañ ko daan kalaame ci fitnaal ab fameem moo xam ndijaayam moo xam képpo takk ci moom wax na itam ni am na ay jamono sax jël na fi jaasi bëggoon a cor ndijaayam ak jabaram nee na jël na fi jaasi ay jamono ndax xam naa yooyu kalaame yépp après dafa feeñ bëggoon na cor ndijaayam ak jabari ndijaayam loolu nag mu jut antu waaw non dani dani ngeen jëloon na jaasi coroon ndijaayam ak ak jabaram waaw maanaam cor ga antu na ngeen baal ñu li muy sàkku ci juge bi mooy ñu tëj ko bu ko defee fitna moom dootu ko gis fenn waaye du koy dégg ñoom loola lañu wàccee seen kàddu ndax ki nga xam ne am nañ ko muy client nitu fitna la beneen bi ci des itam nekk na jàmbaar joo xam ni saa su nekk rek mu ngi créer loo xam ni ñoom mësuñu koo xam mbir mi nag fas ne nañ ko délibéré waat ca tribunal ba ngir nag vie de dossier bi le huit novembre 2023 bii ñu jëm ca tribunal bu Thiès muy feebu doy waar jeune boo xam ne nekk ci famille mayu leen jàmm mayu leen fu noyee koo ci bund xataal ba ni kii la nga dem ci keneen agressif violent beneen bi ci des mooy sa maam ak at ya mu am nga songook sa jabar ab xeex muy ñëw di àtte di defendre sa jabar ngir naqar wi nga koy teg nga bumax ko mu ni jànjang wuti bloc opératoire loolu doy na waar ci jeune jeune boo xam ne ëllëg yow ak sët ni mu neexee ci maam ëllëg nga war a ne responsable kër gi amoo benn xalaat booy def lu dul loolu waaye mbokk yi fee bi war nañ cee jàng benn ponk ndax xale bu góor bi li muy def moo ko tey wala déet est-ce que amut lu mel ni ay àndandoo wala ngeen baal ñu amuñu ci lu ñu leer wala muy jëfandikoo nag su dul noonu yooyu yëpp waroon nañ ko vérifier parce que mënoo na ci famille amoo jàmm nit ñi duñ am jàmm loolu xëy na am na lu koy waral walla est-ce que coowoo wut ak famille bi wala mu mere leen. wala ñu maskoo def loo xam ni jàpp na ni déception la wala trahison ba tax mu yeete fitna ci ñoom am na loo xam ni relation de causalité boo xam ni mbokki internet yi déclenché wu na jëm ci xale bu góor bi ak fameem parce que mënoo jël jaasi cor sa ndijaay ak jabaram wëlbatiku di songook ñeneen ni songook sa jabar sa maam ñëw di àtte nga ni bu góor bu max mu ni jànjang loolu am na loo xam ni moom moo indi loolu loolu nag ci source bi xëy na du waxi tribunal wala muy wax yeneen dossi waaye des na ci xami dara beneen bi ci moom bi muy def loolu bi mu njëkkee commencé fitna gi rek xam nga Sénégal dañuy bàyyi mbir ba mu wëy ñuy door saisir yoon ba mu njëkkee commencé fitna gi rek ngeen xam ni kii nii lii fas yéene na ko wéyle booba ngeen waroon a jël seeni matuwaay dem fi nga xam ne mooy yoon kalaame ko yoon teel ko woo wax ak moom su yemut ñu ni ko ràpp ci kaso bi xamal ko ni ko société bi dañ koo tabax ci ay loi ki texte société bi bu ñu nekkee vivre en famille dañoo war a dund jàmm wala ñu gëstu ko ndax amul po feebaru xel wala dara wala dara waaye waruñu ko woon a bàyyi rek daal di jébbal dossier bi yoon kon mbokk yi feebaa ngi nii muy feebu doy waar xale bu góor boo xam ne gis ngeen li mu def maamam ba mu ne ca bloc opératoire euh, ca diwaanu Touba Toul ginnaaw bi na amee source bi mu yéeme lool kon. Euh, bala ñu yëkkati jotaay bi dañuy wax ni leen yëg yokk leen seen i abonné laal leen cloche de notification bi waaye ngeen koy partagé ndax lu am solo la saa suñu xëyee mën leen a jox fait divers ci suñuy plateforme jër ngeen jëf